leen ko fi réew dañu koy sang te sang ko jikko nag moo gën a woyof ci ni ma ko gisee te sang ko jikko nag réew boo ko dee sang danga koy wutal toogukaay danga koy wutal toogukaay toogukaay ba bu amul bu mën a taxaw di sangu te toogukaay ba mooy légitimité kooku loolu rek la dañ koy wutal toogukaay te toogukaay ba mooy légitimité te comme dañ ni benn yoon la fi légitimité am mooy l'an deux mille te quelque temps après éclatement am loolu kenn xamul lan la il faut que nit yi bañ a topp seen bakkan te seetaat réew il faut que ñu seetaat réew wutal ko fu ñu ko dëj sang ko man noonu naa ci xam parce que Sénégal rëyul rëyul ñu ko jekkal yomb na il faut que ñu wutal ko dëjukaay te sang ko loolu nag kilifa yi xam nañ koy defee ndax man masuma wote bi ma dee chef bu parti ñu ni ma kaay wote ma ni ku ma ko waxati ma dagg sa damaa doon chefu parti bi parce que gis chefu parti bu dul wote ah moo tax rek jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel moom daal suñu ko mënoon kenn ku ci nekk yar sa bopp discipline moom ci sa bopp nga koy jëkk bu defee bu ñu jógee ci loolu ñu bàyyi xel ci ni réew dañu koy sànq te dañ koy wutal tooguwaay tooguwaay bi du dara lu dul légitimité waaw il faut absolument il faut que ci suma biir dund réew ñu nangu bis ni ñu nangu bis ni légitimité bu wér am na waaw faut que ñu nangu ko waaw bu ko defee nag ah xëy na yaakaar mën na nekk yaakaar mën na nekk ndax xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg may am na ku ñëw ni ma ab ah, président nee na dafa bëgg a rencontrer opposition bi boobu nag aw ma ci xam-xam bu doy mais dama foog ni bu ko waxee dana ko def waaye daal bu ñu mënoon am rekk teg ko ci toogu sangu ko parce que jaar na ko de waaye itam kilifa yi fi jaar yépp condamné nañu li tax ñu def ko dañ ñu cax Lat Joor ñu cax Alburi daf ñu cax Xaaji Omar daf ñu cax Maodo daf ñu cax ma wax la ko nag kenn ku ne yaay seet sa bopp yaay wax ak sa mbokk bu ko ñëpp defee mu baax Maodo daf ñu cax Hadj Omar daf ñu cax Lat Joor daf ñu cax Bourba Jolof daf ñu cax waaw ndax bu ñu xëyee rek ne réew mi nii kenn ku ne wax ni réew la mu nga xam ni ku ñu xam foo jëm dafa ak seetal loolu seetal loolu te Alaaji Umar la mu waxoon ca Ndar moo gën a metti parce que nee na bari na ku fi am cër te doo ko mujje bari na fi itam ku am wilaaya te doo ko fa mujje ñu ni ko lu tax mu ne aada ji aada ji moo tax Maodo dafa mësul gëm aada mësu ko gëm te def ko kondam ne dafa mujj jëpp ñëpp sëñ Babacar si nee na maa dem ba Serigne Moussa Niang bind ma ca Ndar ni ma kay dimbali mu ci góor gi dootuñu nuyu sax passé ñaari baat ñëpp jaaxle nañu nee na ma ni nag tey ma dem waxi Maodo li ma ko bëgg a wax nag ne jàpp sama fit ne fabu dugg ci saxaar gi ñëw ni tey laa koy wax nee na ba ma ñëwee laa ilaha na daal sama dàll ya xamatuma sax bu mu féete walaay ndeysaan nee naka laa ko ni waaye góor gi yow itam nit ñi nee na mu ma ana nit sa diggante ak yàlla jëlal sa baaraam bu ma kenn ni ma kii nit la